dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf ci bi ngeen ànd ak ci AGT News dal leen ak jàmm président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre di Ousmane Sonko ba tey jile presse alimentaire bi bàyyi wuñ leen ñoom ñooñu nga xam ne bi ñuy nekk ci opposition dañu leen sonaloon. di leen teg ay coono yu dul jeex waaye itam di teg ci seen ay der loo xam ne amut gis nañ Ousmane Sonko sortie bi nga xam ne def na ko ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar yenn ci presse bi ni ñu ko traité ak itam lépp loo xam ne dafa ñeel seen ab doxalin ni ñu koy critiquer ak ni ñu leen di jéem a jaxasee ak askanu Sénégal waaye nag kañ ko seqal di Ousmane Sonko da leen xam bu baax a baax moom am na ay kàddu sax yoo xam ne mosoon na koo yëkkati jëmale ko ci waa presse bi en général surtout nag ñi nga xam ne ñoo di patron de presse yi mais surtout ñi ko gën a sonal mu di waa l'observateur ndax gis nañ saa su nekk titres yi nga xam ne dañ koy génnee muy lu doy waar lu yéeme loola lu ñu war a mën a xoolaat bu baax a baax Ousmane Sonko kàddu yooyu mu ci yëkkati woon la ñuy daal di teewlu dooga mën a dikkaat ci suñu jàngat waaye bu leen fàttee aimé vidéo bi partagé ko ngir ñu bëree bari dal ci mën a jot ñu teewlu le premier ministre Ousmane Sonko jamono yooyu kaddu ya nga xam ne yëkkati woon na ko. AGT News. la presse maa ngi félicité Barthélémy Dias li mu wax keroog dëgg la une bonne partie de la presse boobu problème la ci Sénégal barki yàlla booy xool pressu su Sénégal nga xool presse Mali wala presse Burkina da ngay c'est devenu un problème la ko nag yéen journalistes yi taxul ñeen ñu wax de yéen moom ñoo bokk coono ñooy naanandoo suñu lacrymogène fu ñuy tourné ñooy faraanandoo ci àll bi seen patron yi de mbëkk fële ñu jox leen ay milliards te duñ leen ci jox ñoom la ñuy waxal ay dóorkat ay mbëkkkat nguur gu ñëw ñu naxanteeg moom laxas si moom ñooñu ñoo tax ñuy wax dafa am jamono nit ñi dañoo gëmoon ni le la la quatrième le quatrième pouvoir c'est la presse dañ ko daan dégg même dans les livres de livre de droit constitutionnel dañ ko doon wax moo tax ñëpp dawoon dem uti organe de presse ne su ma ko amee am naa moins de presse de pression am na waykat bu ne woon euh, nu mu ko tuddee ouragan ëppal asamaan euh, jant leer ma jànnoog satellite satellite woon ma feneen feneen dinaa liggéey ba am lu ma jëndee satellite nangam nangam boobu ngént bu yàgg la woon su ma juumul kàddu yi noonu la ñu jàpp ni ku am sa groupe de presse soxlawoo parti politique te ëpp doole parti politique yi soxlawoo nekk président de la république te ëpp président ëpp doole président la république bu ko defee mu doon moyen de pression et de chantage sur les gens et ça marche avec les petits présidents yu amul benn personnalité xaalis bu ne nga joxe ko naan nañu bind lu baax ci man ak bu ñu nañu bind lu bon ci ñële mais loolu dafa jeex tàkk la jeex dañoo nekk jamono joo xam ne. presse sax léegi mu dépassé parce que yéen ñi ñëpp journalistes yi wóor na ma ku nekk am na sa benn blog sa benn page Facebook booy def sa benn site internet ku yaakaar ni yor nga groupe de presse loo neex nga wax ci nit ñi te li gën a garaaw mooy kenn doo tudd yow mun nga taxaw wax loo neex ci nit ñi ku la tudd nga benn ni mbott bu war bu war caméra loolu au nom de quoi au nom de quoi invité nit ci plateau mel ni ku ku. lu ne nga yàq ko ko moom mu dóor la benn ngay ngay bëgg a xatraay au nom de koi cette dictature ne marchera pas en tout cas moi ça ne marchera pas avec moi je respecte chacun et j'exige le même respect de chacun lan la ñu fi bindalul ci ay ngeen wax ngeen baal moo ci wax ji may ay fenu neen l'observateur en pleine campagne son a reçu cent quatre quinze millions de touloy ooy est-ce que am na lu gën a garaaw loolu kan moo ci wax ngeen foog ne loolu dina continuer noonu dans ce pays parce que yor naa sama organe de presse rek lu ma neex ma bind ci nit doo xool ni père de famille la doo xool ni dafa am njaboot ci politique ay milliers de personnes topp ko bañuñu ku def nga am preuve ni def na nga wax mais sos suba ngoon guddeeg bëccëg sénégalais dañuy toog di seetaan seen télé nit di wax ñu naan kii moo mën a wax lu dul noonu parce que nit ñi léegi dañoo yeewu moo tax li Barthélemy def ànd naa ci man réew mi il va falloir crever l'abcès te ko nangu. AGT News. muy lu am solo kàddu yi nga xam ne président Ousmane Sonko yëkkati na ko réew mi nag li mu wax jeexalee ko dong la ñuy dikkaat mooy li fi amoon démb mënatu fee am tey képp koo xam ne da nekkoon ci presse alimentaire bi am koppar yu ñu daan jox ngir ngay tiitare ak bind ci yenn sujets yi yeboo nga lem sa génte toog te xam ne nguur gii. jub jubal ak jubbanti dong mooy seen slogan te loolu la ñuy dundee loolu la ñuy doxee loolu la ñuy waxee nekkul lu bees ci ñoom luñ naan dund la démb laata ñu nekk au pouvoir donc nag am nañ joxtu ne ñoom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak képp ku ñu àndal rek jub jubal jubbanti boobu lu ñuy dundee la ak itam lu ñuy saxal la ci képp koo xam ni da ngay jëflante ak ñoom. presse bi nag bëri na ci ñoo xam ne peut-être mën nañ ne war nañoo xoolaat seen taxawaay bu baax a baax surtout l'observateur bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy ngawti ngawtee yàgg nañu di bindal Ousmane Sonko loo xam ne du dëgg kon nag bu ñu ñëwee ba tey jëlee di ko defaat du nekk lu bees ci askan wi ndax ñëpp gis nañ lu bëri ñu daan tiitareel Ousmane Sonko te nekkul dëgg tey jii bu ñu demee ba Mabouba Diagne génn di leen demanti par rapport ak li nga xam ne moom moo di koppar gi ñu waroon fay ñi nga xam ne ñoo di producteur agricoles yi da ngay xam ne l'observateur ba tey jëlee mi ngi tergiversé par rapport ak mbiri Ousmane Sonko wala bokk rek li ñuy def ñoom ñoo ko tey am na ci loo xam ne nag faw ñu jàppale ko nguuru Sénégal saa su nekk dañ koy wax mooy askan wi ñëpp war a ñëw ànd ak ñoom booloo tànk ak tànk mbagg ak mbagg ngir mën leen jëmale ci li nga xam ne moo di réussite ndax bu dee président de la république Bassirou Diomaye Diakhar dafa échoué lu moom képp moo échoué ce sera le Sénégal ndax ñoo ko fal à plus de 54 pour cent loolu nag mooy objectif bi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu war a am moo ñu nekk ci presse bi moo ñu nekk ci yeneen corps yi nga xam ne yëpp moo am ci réewum Sénégal bu ko defee rek mën nañ jàpp ne Sénégal gii dina jëm kanam kenn weddiwul nag ne opposition daa war a am ci am réew waaye jamono ji mel na ni presse bi moo gën a nekk opposition que opposition bi nga xam ne sax moom lañ doon xaar ci président Macky Sall ak i ñoñam comme ko ci mel ni Amadou Ba loolu nag bu dee dañ ñëw dem ba toll ci ça veut dire que tout simplement am na benn gène boo xam ne am na fi te ñi nga xam ne ñoo continuer di alimenter boobu gène du kenn ku dul presse bi nga xam ne mën nañ jàpp ñun ne dañoo nekkoon ci li nga xam ni moom moo di système bi système boobu nag jëlee nañ ko fii lan moo fi nekk le projet kaay leen gars yi ngeen jàpp ci projet bi moo ëpp njëriñ moo ëpp solo li nga xam ne moom ngeen di def ndax xale yi ñoom duñ leen ci bàyyi ñu ngi woowee boy yi jamais képp koo xam ne rek yaa ngi jéem a nasaxal projet bi di ci jéem a sotti suuf déedéet gars yi duñ ko accepté duñ ko nangu nañ la battre en brèche tegee la de côté yee askan wi bu ko defee président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane ak seen i jëwrin ak seeni collaborateur ñu mën a doxal projet boobu nga xam ne ñun askanu Sénégal ñoo ko tànn bésu 24 mars 2024 ngir mën koo jëmmal jëlee fi système bi ngir lu ni mel ñu mën ko wëyal ñu génn ci jafe-jafe yi nga xam ni depuis atum 1960 ba tey ñu ngi ci nekkoon 2012 jëm 2024 président Macky Sall accentué woon ko ñu jël ko nag tebbi ko ñoom ñëpp tegee leen de côté fas yéene doxal suñu am réew yi ngeen di gërëm di leen jaajëfal ci jàngat bu gàtt bi nga xam ni moom lañu bëggoon def joxante dig daje beneen yoon ci beneen chronique jërë ngeen jëf AGT News